haasim tuddul haasim amrul ala la tudd haasim mooy kuy yéwénal ñam di ko jox ku ko soxla dem na ci ba def ko loo xam ni dafa aju ci continent yi dem na ci ba yàlla mi xam ni bu ko mu defal ko ko puukare ci alquran ndax bañ mu niru e, jëfandiku tey dëgg la sax sunu boroom wax na ci alquran ni ki loru seetul ki nëbb ak ki feeñal moom na ca jot rekk waaye ne ci nëbbu moo ma gënal boobu la Hachim jël comme daraja fexe ba muy daraja ki soxla te bañ di daraja ki ko dimbale ca soxla sa liggéey ko itam ba yàlla indi image ba ci suuratu Quraysh moo tax mag ñi daan ko bindal seen doom yi def commerce ñu di ko def ci seen buntu boutique bu ñu dee génn réew itam ñu bindal leen ko ñoom gëm nañ ko te gëm mooy maye gëm nañ ko te gëm mooy maye